téléspectateurs yi ñuy teewlu à travers Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte nag ak euh, bànneex rek di jàkkaarloo ak yéen saa nekk nee leen nii lay demee lépp loo xam ne rek jógee na ci làmb ci maanaam ci arène bi toog fii daal di leen ko faram fàccal mais tout nag ma ci wéet parce que maa ngi ciy ànd ak sëñ Babacar maa ngi ziar. Euh, soxna Ami maa ngi lay delloo ziar. ci loo nga fa ñëpp ak si bi waaw waaw du mën a ñàkk xam nga rek liggéey bi ñaari guddi samedi dimanche. Mhm. yoo xam ne da nga yor micro. Mhm. di reporter ba 5 heures du matin wala 6 heures. waaw da namoon micro nag. waaw yàlla dogal. <laughs> tamit dëgg <laughs> voilà mbokk téléspectateur yi bu baaxee ñu dem seetaan revue des titres daal di del siwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 2 mars 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi suñu lamb la ñuy xëy dooreti ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu làmb moom tey fa mu xëy ñëw fenn la maanaam daal ci bés boo xam ne amoon na ba mu amee nag na mu amee woon moo doy waar muy ñaari combat yoo xam ne daal yëglikaay bi na mu ko tuddee kere ba mu amee daa mel ni ak dënd goo xam ne daal daa fàqi ko ci kaw asamaan sa wàcc ci suuf te ku ne xam ne ne bu loolu amee moom la muy jur ay jafe-jafe ki mettit lay doon muy ñaari mbër yoo xam ne la leen dal ci weeru avril dootuñ ko fàtte amateur lamb yi dootuñ ko fàtte ba ca jëkk mooy diggante Baboy ak Bombardier ca Thiès kere yëglikaay bi ne na ba mu amee daal tombeek le 16 avril 2006 maanaam combat booba daal kenn dootu ko fàtte ndax lañ ca doon xalaat ci Bombardier mu duma Baboy wala mu gaañ ko moo ca mujj am la ca mujj am mooy Bombardier moo xam ne Baboy daa ñëw ñime ko lool ñu ne déet na waay mu xeex ak moom song ko daw tibab tànkam déj ko Bombardier dar bopp ba yëglikaay ba xëy tey wan ñu foto ba beneen combat boo xam ne tamit ci weeru avril la amoon waaye moom le 22 avril 2012 la amoon mu amee woon moo doon Diop ñaar ñi ko seqoon mooy Yékini mi nga xam ne moo fi nekkoon te kenn xamu kon fooy jaar ba daan ko Balla Gaye de jël ko ñu naan dana ko daan du ko daan ba ñu ca demee bëre ñoom ñaar combat bu tarte metti Balla Gaye de mbotte Yékini daan ko yëglikaay bi ñëw na tey tamit wan ñu lool mu mel ni ki daal yëglikaay bi loolu la xëy tey jàpp tudde ko ñaari bés yoo xam ne daal maanaam ay dënn yu fàq la wàcc sunu làmb xëy waxee nu mel ne ki noonu ba tey bu nu continuer ak yëglikaay bii di sunu làmb ñii moom liy wàcc ci moom wala boog liy wàcc ci ñoom nekkul loo xam ne lu baax la likkaay bi daa jàpp ne ñetti mbërë ngi yoo xam ne daal li ñuy amlante ak justice bari na lool ka ci njëkk mooy saalum saalum bébé jéen ba ci bébé saalum mi nga xam ne barki démb am lante na ak wàllum justice sunu làmb xëy tey ñëw toppal ñu lu mel ni ki noonu ba tey leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci ñoo xam ne moom ay xale lañu ñëw ci làmb di wane seen bopp muy ñeenti promoteur yoo xam ne daal ku yebu bàyyi leen xel ndax nag loo ci mën a dégg am nañ fulla am nañ fayda te itam nag la ñuy def bëgg nañ ko te ay xale lañ te ñu ngi ca yoon wa ka ca njëkk mooy baaba jaw ba njiite jàmp càmm production ka ca topp mooy idaali ñi ngi ma nga xam ne moo jiite ñi ngi production ak Adama Sané moom tamit di promoteur waaye Sambay Fall tamit ma nga xam ne moo jiite Sam production mu mel ni ki ñeent ñi daal sunu làmb xëy na tey tànn leen ci ay xale yoo xam ne wala boog tànn leen ci promoteurs yi ñuy ay promoteurs yoo xam ne daal ah am na lu ñu bëgg tey itam ñu ngay wane seen bopp bu baax a baax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb keneen koo xam ne xëy na di wax muy Malick Ñing ak CNC mi mu xam ne daal jàpp na ne fi mu nekk nii moom ay activité moom commencé def na ko ko démarré na ko yëglikaay bi tamit xëy na ñëw ci ki nga xam ne moo di Doudou Diagne ko mu jiite amateur yi Doudou daal la mu xamle donte huis clos bi daal dana am waaye mais la ca topp la ca topp la ca tegtal waaye mi huis clos ba su amee daal waaye loolu mooy waxe ki nga xam ne nii moom moo di Doudou ko bu buñ fa jógee fa ñuy dem moo di record record nag moom bombar la xëy tey ñëw ci moom ak MMA ba nga xam ne daal mu ngi ci ka xëy nag di wax moo di Samir Fawaz Samir nag moom expert la ci wàllum komba boo xam ne daal daa ànd ak i dóor Samir jàpp na ne daal Bombardier moom fi mu nekk nii du jamono ji daal lay war a dugg fa nga xam ne moo di ca UFC Sami xëy wax lool du samay wax keneen koo xam ne MMA ba moom itam mu nga ca muy rëg-rëg yëglikaay bi di record xëy na tey xamal nañu ne dey mu nga ca Dubaay di faray boppam ci wàllum entraînement donte adversaire ba muy bëreel wala boobu ba mu war a jonganteel kenn xamagu ko kan la yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ñeneen ñoo xam ne nii moom la leen di yoot buñ sàgganee du baax muy année balance muy lambi simple ji ndax ba tey fi mu nekk di daal léttaguñ leen wala boog ñu firi leen ñeneen ñoo xam ne nii moom firi nañu nit ñi ca la nga xam ne tëgg nañu ko muy waa Equivox jàppal yow yëglikaay yi wala boog bu ñu demee ci Equivox moom fa la ñuy fekk boobu xibaar maanaam seen tournoi ba nga xam ne G5 lañu ko tuddee maanaam juróomi grand combat ci benn bés yëglikaay ba xëy na xamal ñu ne nag jàppal waa Equivox moom leeral nañu mbir ya ba mu leer nañ ne la 30 mai daal la ñu fas yéene nag tëgg juróomi grand combat yooyu yépp fa nga xam ne nii moom moo di ca arène national loolu mooy la ñu nar a def tey itam nag duñ ca yem de waaye boo bëggee dégg dëgg la jàppal àllarba jiinu jëm moom di tolloog le 10 jàppal bu 15 heures jotee waa wax su tamit fas nañu yéenee nag woo mbër ya nga xam ne ñoom la ñu tëgg ngir ñu wax ak public ba daal di commencé liggéey ba waaye yemuñu ca de le huit ba nga xam ne tamit mooy wala boog la quatre juillet Equivox su tamit la mu nar mooy tëj la nga xam ne nii moom moo di am saison loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu fa gis ba tey ca Equivox su booba tamit boo bëggee dégg dégg daal lambi gambi yaaje yëngu woon na lool ba yegg ci lool ka ko jël nag moom moo di libidoor bu Grand Yoff libidoor daal moo daan ka xam ne moo di dut saane woon na ca combat ba daanu naag daanuwul waaye un million ya moom Libidor gàddu na ko yóbbu ko la nga xam ne moo di deux cent cinquante millions tamit ca xale ya wala boog poids laissé ko ko jël moo di Johnson ci kaw la mu mel ni kon daal Gambia rawatina Fass Ndiaga Coy moom yëngu woon na ña ko yëngaloon nag ñoom ñoo di waa Njaay production kon nag bu ngeen yeboo xaar yéen téléspectateurs Equivox TV yi xaar leen ak ay vidéo yoo xam ne ay coulisses yu doya doya doy ca ruq-ruq yaag amoon yu doy waar ca fa nga xam ne moo di Fass Ndiaga Coy waaye du mën a ñàkk koo xam ne nii dafa génn àddina bokkoon ci làmb daan yëngal di yëngutu yàlla jël ko muy faabi filir dëkk fa nga xam ne moo di filir ñu naan ko faabi bopp génn àddina bari ki dem yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana maa ngi koy jàll askanu làmb yépp rawate na ñi nga xam ne nii ñoom ñooy askanu séréer nekkoon euh, revue des ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb kër xëtam bu njëkk tey mu ñëw ak ñun nag ci combat yu nganda nganda yoo xam ne amoon na fi ci jëmmi jamono. Mhm. muy diggante baa Baboy ak ji Bombardier booy amoon ci ndam bu rëy nag. Mhm. ki nga xam ne tamit moo di Balla Gaye 2 daanoon fi Yékini daan bu mag ginnaaw nag ba mu toogee ci jal bi lu yàgg. waaw muy ñaari bés yoo xam ne. defe naa kuy dund làmba. Mhm. waxuma sax même ku dund làmb sax kuy sénégalais rek. tat yi defe naa doo ko fàtte waaw parce que ña ca jooy bëri na waaye ña ca ree bëri lool parce que laa dina tëdde defe naa ne le 16 avril samedi 16 avril 2006 ca Thiès defe naa bañ na tey la Baboy ak Bombardier bëri ca Thiès ñëpp dañ ne woon Baboy mi day xaar ñu bëri yërëm ko nit ñi tiit naan bu ko Bombardier jàppee xajul ci kawam effectivement boo xoolee leen ñoom ñaar comparé leen ci taxawaay ak si jëmm ak ci force da xam dëgg yàlla du ñu benn mais dafa wute xeexu mbedd parce que lamb ay pexe la plan la stratégie la nooy taxawe la nooy dóore la nooy songe la loolu la Baboye jàng te itam nekkul ngaaka ci lamb defe naa moo tax ba arbitre ñoom ñaar da ko tooñ Bombardier bëgg a fayu mu xañ ko ko ba mu ko tooñaatee Bombardier ne day fayu par force nag ci la daw dajeek moom tibb tànk bi te xam nga des fois mbër mu mel ni Baboye ak boobu force bi mu yor ak rapidité am ak gaawaayam parce que mën nga ko ëpp nii corpulence ëpp ko masse mais est-ce que ko ëpp doole lool lool duma ko foog parce que moo waral a di am fii kera am fa moo tax bi mu dawee tibb tànk bi rek Bombardier desul dara da ko dëj Bombardier waaru bi ci des mooy Baboy wala boog Balla gay ba tey ak Yékini foofu tamit li ne woon problème mu nit mooy nit woon sax xëy na est-ce que Balla ko ndax Balla bëreem wala dooleem déedéet parce que Balla ku ne xam na ne mën na bëree am na doole mais li ñu ne woon problème nit ni mu nekk woon ci làmb personnalité bi ak ni mu doon doxale gëmuma daanu daan laa gëm nekkoon Balla gay de fu muy jaar ba génn ci lii mu nekkoon lu ñëpp di xaar mu nekk bis boo xam ne kenn du ko fàtte defe naa kera Demba Diop ñaari mbër yi bi ñu songo ba jëlli bi am lu doy waar am na te itam bëre ba la ca neex mooy dañoo xeex waaye dañoo bëre te bëre ba ci bëre la jeexee bëre bu am technique moo doon diggante Balla Gaye doon wax ne l'histoire ba tey dañ koy dañ koy fàttali ko fàtte du mën lii <laughs> du mën a ñàkk ay ati at ci kanam insha allahu rabbi bis yi dañ koy xel di fàttali ko amee Babacar bu ñu jógee foofu rek ñu dem seeti nag euh, ñeenti jeune promoteur yoo xam ne vraiment. Mhm. ñu ngi def euh, liggéey bu am solo daal mu mel ni rek euh, Baba Diaw ca la bokk yi daali ak aadama Sane ak ki nga xam ne moo di Sambaay Fall. waaw samay frère maa ngi leen di nuyu leen ziar mhm. parce que ñi ay nit yu baax lañ macha allah comme ni ko yeneen promoteur yëpp mele mhm. mais ñoom tey yëglikaay bi daf leen a taal parce que ay xale lañ boo leen xoolee ci âge macha allah waaye tamit. ku ne xam na ne bi ñu dugg see si làmb wax dëgg yàlla ñu ngi yokk te olof na ne ku yokkul yaa wàññi ndax tey eh, ku mel ni sàmm boo xoolee moo jiitu ci ñoom xale yooyu moom moo ci jiitu mm-hmm. daan tëgg caaro yi ay ay a ngi bëri mel ni Sam moomu kon defe naa nee naa la ay mbër yu bëri tey caaro ci loxoom lañ bëri ay xale yu ne tey ci làmb ji moom leen doon tëggal mbapat ba a ba tey gis nga kuli fay numéro ak général bu Fass moo leen tëgg actuellement ñu ne déet na waay idaali ñi ngi tamit kazalika naka noonu nekkoon jeune bëgg làmb nekk amateur di ko dund ba xëy a xëy nekk amateur tëgg tey même ren def na benn tournoi boo xam ne tournoi bu neex la moom idaali Baba Jaw noonu nekk xale dëkk Gueule Tapée Médina xam nga bëgg làmb ndax Fass a tax ak écurie Ndakaaru bi leen waroon tey mu jóge fa tey nekk koo xam ne tamit topp làmb di seetaan di dagg bi yooyu seer ba tey mu nekk promoteur defe naa Quench double moteur rek ku ko taxawal taxawal nga làmb ak yeneen combat sa aju mhm. soq gàmmu gi Adama Sane mi tamit ñëw kazalika naka noonu ah suñu mbokku jaamu séeréer bi joolaa bi ah, muy nuyu joolaay muy loo xam ne ni daal ay xale la ñoo xam ne ñu ngi leen ñaanal tey fi ñoom Gaston Mbengue yeeg ñoom Luc Nicolaï ñoom sëñ Mourou ñaa ci niveau promoteur mhm. yàlla ñu dem ba dépassé ko te it am nañ ci yàqin jom ak fit rek la ah bien boo amee jom rek dafay dangay ngay daal di nem daal na sa loxo set daal ah, exactement voilà ci loolu tamit dañuy daal di desandi rek ak mbiruma justice temps yi mu dugg ci làmb ji mhm. mu mel ni nag ña ca gën a fës rek bokk na ci Saalum Saalum euh, ak ki nga xam ne moo di bébé Saalum ak bébé Diène vraiment ñuy gis rek ñuy am à chaque fois rek ay contentieux ak ñi nga xam ne ñoo di justice waaw loolu day yéene wuñ leen ko te duñ leen ko ñaanal te dañ leen di ñaanal tamit ku ci am contentieux ak justice yàlla na yàlla def mu jeex mhm. te bu jeexee yàlla na yàlla def ñu bañ la si topp dara mhm. maanaam lañ lay toppee mu bañ a demee noonu parce que loolu lañ leen yéene loolu lañ yéene bépp doomu addina mhm. rek mu tëdde noonu ndax dama foog ne ñoom sa bu ñu sañoon mhm. du ñu faral di dem kaso bëgguñu ko mais xëy na nag nit ay ndox ndok dina ko dal kon nag la nga xam ne ni daal justice tamit dama jàpp ne bu la nee nangam la la la wooyee mhm. xëy na daa am lu mu ca fook wala lu mu yaakaar ne moo ca ne mhm. mais nag bu ñu demee rek comme réew mi moom dañu jàpp ne justice moo fi ne di doxal di teg mbir yi si yoon ku ñu xalaat ne yow mii say mbir dafa dëppawul ak li war a am buñ la wooyee nga wuyu leen leeral leen mais ñu leen di soutenir di leen ñaanal yàlla buñ ne soutenir nag di leen ñaanal yàlla liñ nekk ñu génn ci ak jàmm parce que ñoo bokk ñoom làmb ji te itam wax dëgg yàlla ay mbër lañ yoo xam ne am nañ si ñoom yaakaar muy saalum saalum muy bébé saalum ba ci bébé jéen lépp leeral la rek mhm. yàgg yàgg dëggay mujj bien moo di démarré nañ seen activité. waaw waaw moom démarré parce que tey le premier mars tey la waxoon wala le deux du moins tey le deux. Euh, làmb ji ubbi na comme activité yi démarré na rek ah ñu ñaan yàlla rek comme ni ñu wax rek làmb ji commencé ci jàmm rek. mu bëree ci jàmm mais ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla def daal yi njëkk am sax yàlla nañ ko mën a seetaan yaa mu bañ wiklu loolu la ñaan ñun. amiin yooyu la information suñu làmb ñoo ko fësaloon ñu daal mhm. jàll nag ci ki nga xam ne moo di Bombardier xam leen daal moom fi nekk nii mënagul a intégré li nga xam ne moo di UFC bi. waaw lool la gis Samir Fawas di expert boo xam ne ci wàllum boxe moom am na ci xam li mu wax nag am na lu tax wax ko parce que ku ne boo waxee benn wax yow la tax nga wax ko yow yaa ko xam. Ah, xëy na moom mi wax am na fu ko teg loolu nag defe naa duñ ci mën a sori Samir Faas ma ma lay fàttali leen rek nekkoon na entraîneur Tapha Tine ci wàllum boxe hmm. jamono yi muy bëreeg Bombardier ak ay ñoom Elton waaw di expert ci wàllum box ñu koy nuyu di ko ziar. Mhm. xam nga nag Babacar ndam dafa neex. ba tax na moom rëg-rëg moom xam ne rek moo di Dubaay. <laughs> waaw c'est normal dafa ci ndam lu rëy. <laughs> waaw moo tax fa ni mu nga Dubaay xam naa doon fa toppatoo lu jëm ci wàllu MMA di ci mhm. profité wala xam naa di jëlaale eh, beneen air bu bu nouvelle air parce que loolu tamit baax na des fois dafay baax mhm. nga xaw a feexal sa bakkan tuuti rek ci loo xam ne dina méngoog li neex sa borom wala li méngoog tey ca Dubaay ñu koy

addu wuñ ci daal maanaam yëngu-yëngu bi des na foofu dañ leen cee war a boole nag waaye nag bu ñu ne lamb ubbi na pour man ñëpp ngi ci biir ah mm-hmm. parce que bu ñu ne saison bi ubbi na mm-hmm. amatul lit simple amatul lit faram yoo xam ne war nañ ko tëgg mm-hmm. kon lit simple bi moom man dama naan lamb yëpp ubbi na problème lit simple kay mooy moo jaaxal nit ñi ndax man mi demoon gër a kër a gaam bi lit moom mel na melokaan woo xam ne ni amee la ca dàq anglais di wax enjoy nga ko. gaa yi <laughs> buy way gaa yi tëgg ñoom war ngom ñi wala ay. Mm-hmm. xale yooyu dëkk seen dëkk gaa njaay. yooyu aka ñu xaraj yooyu dafa doy waar yooyu moom. voilà dama jaar foofu rek laaj la la xewoon Fass Ndiaga Thioye. ah Ndiaga Thioye day jàmm fa xew. waaw ña ña yóbbu victoire ba lourd ba ak léger ba. waaw combat yu métti. 35 lourd 65 léger. waaye léger ba Johnson a mujj daan la ko Johnson di xale bu dëkk Ndiaga ñaaw. Mm-hmm. nekk écurie kaay baax fii ci Tëngéej di xale bu am avenir bu ñu war a bàyyi xel. bu mm-hmm. mën a bëree macha allah. gëm boppam démb euh, démb si suba mu xëyee ñoo bokk toog fi ñu nekkoon doon waxtaan mais xale bu jar a bàyyi xel la. Mm-hmm. si carrière si kanam bu sàmmee boppam moom tamit euh, Libidor nag des ko présenté waa làmb ndax xam nañ ko ci mën a bëreem di doomu li bu nekkoon fii Grand Yoff mbooloo bala yàgg li ñuy wax rek mu dellu ci mbokkam fa fële nga xam moom mooy kayaar waaye boo ko gisee daaw ren nga gisaat ko di nga xam ne yokk na boo ma dégloo ci reportage bi maa ngi koy wax mhm. yokku na liggéeyam bu baax a baax mhm. te te loolu bokk na ci li ko génn ci tournoi bëri ki démb bi ndax dafa bëri combat yu métti moom ñàkk jariñoon bañal nañ fi daje bu métti saane na mhm. waaye wax dëgg yàlla moom la ñu jox ndam li ñu koy féliciter di encourager dut saane leen wax ne moom lamb simple moom noonu lay demee dañuy daanante rek waaw mais waa Fass Ndiaga Thioye daal mais ci profité nag di nuyu waa Fass Ndiaga Thioye mm. rawatina as Thioye nekk ci Serekunda Euh, dara kom ba nga demee reporté nga daal di ñibbi si waat rek ah. am naa fa dara am coro. coro <laughs> ami man fu dama lay laaj rek. yor soxna mm. ah, ah, a saa njaafu de. Ah, moo tax nag ñëw ci teneng may coro sax man daal xam ne am daal mooy. Mm. fekk naa fa nit ñu baax muy nuyu ku mel ne As Coy parce que moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. njaga fas njaga Coy ba mu la dëkk. mais mu ngi Serekunda fa lay liggéeyee mm-hmm. maa ngi koy nuyu di nuyu papaam Baye Birane Thioye ak yaayam mm-hmm. ak seen soxna yooyu sax rawatina Fatima parce que toppatoo ba am na solo teral ba parce que man fa ma Fallou Ndiaye dalaloon sax mm-hmm. yàlla xam na ne mën naa bu dee ci lekk la nelaw ma fa doon yóbbu dallu waaye sunu loolu ñoom nanguwuñu sax ñu lekkee ji feneen kon maa ngi nuyu waa famille boobu famille coy boobu nekk Fass Ndiaga Coy yëpp yëpp yëpp rawatina soxna Fatima parce que jigéen souvent di nga ko xamee ci joxe lekk jigéen di nga ko xamee ci nangu joxe lekk mm-hmm. kon maa ngi koy nuyu di nuyu ay borom këram ñoom aasak seen papa baay biran ak paabe mère yeeg ñoom ñi fa nekk yëpp daal mm-hmm. di nuyu Fass Njaga Cooy gépp di nuyu waa Gambia people ñoom paate Gambia mm-hmm. mbay bu amaa tamit ca Gambia moom tamit maa ngi koy béggee parce que du mën a ñàkk xam nga nga dem si réew ñi ñu dalal la may la afiya dafa neex kon waa Gambia Gambia Sénégal benn dëkk la daan ami di kontaan mais di félicité tamit ki maandal mu yàgg maar mhm. liggéey bi taroon na metti woon na mhm. mais wax dëgg yàlla bàyyiwul benn yoon mhm. ñun ñaar ñoo ko seex di ko ñàkkante di ko ñàkkante et tamit loolu la njariñ mu ngi si ginnaaw coono ah. du mën a ñàkk ndax nay neex moom dafa dul wóor day métti ba pare door a neex man loolu laa gëm quoi maa ngi koy nuyu bu baax yàgg mu Cheikh Saliou mu Cheikh Béthio Thioune. Mhm. voilà jaar fa dara képp ñu leen jox dig daje rek ëllëg incha allah